kër Sëñ Tuubaa gi eh, bi nga xam ne moo jotaay si am Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne moo woote ni Sëñ Tuubaa daa woote fii ci kër Sëñ Tuubaa ak mbokk bokk bokk ba boobu ak bokk taalibe yi rawatina nag gannaaw suba di eh, laylatul xadar tey ba ñu doon jàngatal jàngat boobu ban tàmbalee léegi ban jàngat ñu def ah jërëjëf salaamaaleykum noo ngi leen nuyu bu baax di leen siyaare di leen ñaanal yàlla yàggal leen fii tam li nga wax lu am solo la sëriñ bi dama ne man am naa ci gis-gis boo xam ne sama gis-gisu bopp lu ma dencoon la dama ne mbooloo mi sëñ bi dajale fii ñu daje fii ngeen di leen taxaw mbooloo la moo xam ne su fekkee ne woowu leen fii dañu taaroo ci biir dëkk bi ñee di wax lu leen wër ñee wax lu ne mu fexe ba diggante bi ñu leen dajale fii ñëpp seen xel na ci sëñ loolu kenn musu ko def loolu sama jàngal la boo xam ne dama koy xalaat waxtu ne dama ne sëñ bi ni def nii fexe ba mag ak ndaw ko ne kenn desut ñëpp toog waxtu lëmu woo xam ne amoo leen looy lu sëñ Tuubaa rek simtaak mo sa def loolu nag ñu leen ci sant yéen itam ndax li tax ñu leen ci sant dafa am taxaw yu ngeen ci taxaw ndax nii mu mel nii itam sëñ mooy sëñ waa te sëñ Tuubaa sax lu mu bëgg dana ko waaye faaw mu jaar ci ay loxo waaye yéen seen loxo yii mu jaar organisé bi ngeen ko organisé nii ba mel ni mu mel yàlla da koo jagleel ndax murid yëpp ko bëggoon bu fekkee waxante nañ te yàlla tax rek mooy seen defar bi ñëpp ko bëgg fexe ba nit ñi toog nojj fexe ba kenn du dugg ci lu sa yoon nekku ñan ñu itam fañ war a toog ñu toog fa te lépp di dox ngeen fexe itam ba dara yàqu nangi man ngeen di ko def loolu ak cant la rawatina nag sëñ bi seen diggante moom ak taxawaay bi ngeen taxaw yoonu murid loolu murid yi dañoo am am nañ luñ leen ameel loo xam ne murid yëpp dañ ko ameel mooy lu lan la mooy li yi waroon a ànd di ko defandoo ngeen jël ko defal ko ko murid yëpp kon murid yëpp am nañ cant ci yéen loolu taxawaay la noo ngi nag seen jàmbaar ji yàlla na ko yàlla yokk leer fa mu tëdd ndax nit it nag lu waay def ci yoon wi da ko ci boole waale sëñ Atou jaan yàlla na yàlla yokk ah, leeram fa mu tëdd waaye yéen tam seen njëwriñ ji ne seen kanam tam yal na ko yàlla may kattan ba ngeen mën a ànd ak moom liggéey liggéey bi ngeen bëgg a liggéey bépp bu ñu demee ci bis bi nga xam ne ñu ngi jëm ci laylatul xadar nag ñun bés laylatul xadar la sëñ sëñ Muntaxa dañ ko sil moom bis mu ne laylatul la ko def laylatul mooy li ñuy def rek di sëñ Muntaxa ba weer wi ba tey ngir dàkkal murid yi bisu laylatul xadar bis bu ne la ko def muy laylatul xadar nga xam ne faaw ñu dajeeg bis ba ku ñëw ci bis bi day set daal ku xëy si ku ñëw bi da nga bokk ci dajeg bis bi Laylatul la réer mukk loolu la ñu wan rek loolu mooy ak waneem li mu bëgg a wan ni mooy Laylatul Qadr gi ngeen di dàkk sëñ ko moom kaay leen ñu ànd rek bis bu ne ñu jox ko sëñ Tuubaa bu weer wi dee rek ñoom Laylatul Qadr kon loolu itam taxawaay la Laylatul Qadr ji ñu dëgmal itam noo ngi ñaan yàlla ak ci ak jàmm waaye li ma la wax ni rek mënta weesu nag ni ñuy def moom ndax Laylatul Qadr moom mënta weesu jàng ak julleeg ñaan yàlla ak loolu lépp yéen a ngi bu sër leen xat la ci yéen ibu tarxee bi bu sër ñu ngi leen du xadar ñoom moom xanaa nit ñi waaye yéen bu sër ñu ngi ci leen du xadar kon nag leen du xadar fas nañu yéene nii ñu tàmbalee ànd ak sëñ bi noonu lañ ko fas yéene ànd ba ca bis ba nu ànd koog yéen fas yéene fanaan noog yéen fii ba ba set ci rek ñun daal na ngeen xam ne taalibe sëñ Tuubaa leen yoo xam ne lu ngeen nekk ci liggéey sëñ Tuubaa danañ ko ànd ak yéen ba mu jeex tàkk ci barkeb sëñ Muntaxaa bi di leen ñaanal nag seen matuwaay yi ngeen di yor yàlla jox leen kàttan ndax yéen kët gis naa ne am na liggéey bu ngeen nekk boo xam ne fu ma xëyee daa leen ci ñaanal ngir mooy seen liggéey ba ngeen di liggéey ne damaa bëgg mu gën a yombaat ci yéen bëgg naa suñ tubaa wulli xoli murid yi bañ ñëw rek sottandoo ci li ngeen bëgg maa ngi ñaan ci bopp sëñ tubaa ak barke nekk sëñ bi yombal seen liggéey ba liggéey boobu de na ngeen xam ne waxtu ne naa ci ñaan ngir bëgg ngeen gaaw ko àggal ndax su ma sañoon de ngeen am ci ndam te ndam li tam ñun ñëpp koy bokk su boobaa rek kon nag noo ngi ñaan di sant xam ne daal lii jotaay bi daal moom li ma ci li ma ci nga xam ne man moom laa jàpp sama xol mooy sëñ bi fexe na ne ba waxtu bii nu fi nekk moom kenn du tudd kenn kenn du wax kenn lu sëñ Tuubaa rek loolu nag yombutoon de immune silence bi nga daan dégg sëñ moom waxtu wu la ko def <laughs> silence moom waxtu wu la ko def <laughs> kon nag noo ngeen di leen gërëm rek di ñaan ñu daje cee ngërëmul sëñ Tuubaa lu ngeen ci def ren yàlla na ngeen ci def lu ko déwén te yàlla na ngeen ko gën a mën ci barke sëñ Tuubaa jërëjëf.